suñ borom fasiyene aajo fasiyene aajo zahiran wa batinan di ñaan suñ borom képp ku nekk ci ay xat-xat yàlla na ko dindi képp ku tawat yàlla na ko yàlla saafara képp ku am aajo yàlla na ko yàlla faj mbokk yu ñëw gi yéen nag ci ñaan gu am solo ñu koy wax ñaanu yonte yàlla yoonus yonte yàlla yoonus yonent la boo xamante ni borom mos na ko teg nattu natt bu mete mete mooy jën wa nga xamante ne moo ko wan noon dugg ak moom ca biir géej ga dugg ca sufu xeer ya nga xamante ni mu nekk ci ñaari lëndëm nekk na ci muy lëndëmu biir jën wa ak lëndëmu géej foofu moom da ngay xam ne suñ borom rek moo fa mën a génne jaam bi waaye ba mu nekkee ci biir xelam dem ci suñ borom mu daal koy ñaan ca ismalaay enzam ba di ay alxuraan ba ca la ko yàlla suñ borom daal di jéggal daal koy génne ci biiru jën ba mbokk yi xam ngeen adduhaaw silaaxul muminin moo tax yontu saa sala wax ni ñaan mooy ngànnaayul julit te mbokk yi nañu xam ni fi nga xamante ni fi la pexe yem pexe moom fi mu yem pexe doomu aadama fi mu yem fa la ñaan tàmbale bi nga demee ba xam tële nga mënatoo dara foofu la ñaan tàmbale kon nañu bàyyi xel yàlla fu ñu mën di nekk problème bu dal ci suñu kaw lu mu rëy rëy nañ tàllal loxo yàlla ñaan ko dañu xam ni ñaan mooy ngànnaayu jullit ay yonent bi saa salaam wax ni adduwaaw silaaxul moominiin ñaan mooy ngànnaayu jullit waa ay dan adduwaaw muqul ibaati yonent bi waxaat ni ñaan mooy yuquk jaamu yàlla jaamu yàlla yépp eh, ni ñu mel ni ñaan mel ci biir jaamu yàlla yi nee na mu ngi mel ni yokku nam mel ci xeetu ndawal yi ndax fu sore sore la nekk ndax da toj yax doo koo jot kon ñaan moo demee noonu nañu ñaan yàlla suñu suñuy aajo bu ñu tawatee nan ñaan yàlla eh, bu ñu amee aajo nañ ko ñaan suñu borom ndax suñu borom moo ne fa inni qaribun ujibu da'wata daa'i saa daxaani man yàlla ku jege laa dinaa wuyu ki nga xamante ni mu ngi may ñaan kon tawat ji nga xamanteni mo moo dugg ci aduna bi yep aya alquran bi baxna ci lol aya bi nak moy la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min min alzalimin لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين liggéey bi nag dañ ci andi incha allah rabbi tariqay ni ñaari yoon yoon biñ ciy njëkk a joxe rek mooy yoon bi nga xamante ne mënees na ko liggéey dimanche ba samedi muy juróom-ñaari fan waaye incha allahu rabbi ginnaaw boo defee naafila salaatu nuuru eh, ginnaaw fatiha onze xul wala aw ahad deuxième raka bi ginnaaw fatiha vingt et un xul wala aw ahad ñeenteelu raka bi ginaaw fatiha 31 qul wallahu ahad euh, ñeenteelu ràkka bi ginaaw fatiha nga def 41 euh, qul wallahu ahad kon noonu la muy ñeent ràkka yi première bi 11 euh, la deuxième bi 21 troisième bi 31 quatrième bi 41 mu ko defee mu nekk 104 tolloog samadu boo noppee ne nga daal di nga daal di jàng aay bi ginnaaw boo defee istixfaar téeméer salaatu ala nabi téeméer laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin nga def ko ci premier jour bi sans os te tàmbali ko yowmu laxdi muy dimanche altine nga def naafile gi def istixfaar salaatu ala nabi comme niñ ko waxee woon sànq daal di liggéey ci sa kurus ginnaaw boo defee astaxfirullah salaatu ala nabi bu ci nekk téeméer laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin nga daal di koy def deux cent vingt deux deux cent vingt deux ka defee yow yomu sulasaa yi muy talaata ka defee nga def naafile yi julli ci yant bi def istixfaar téeméer jalaat ci sa kurus liggéey laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ginnaaw ba def istixfaar sa alaande bis ne téeméer 333 ka defee yomul arbuaay muy bisum ñeenteel ba di àllarba eh, bu ko defee nga daa def naafile yi def istixfaar téeméer salaatu ala nabi téeméer jël ci sa kur liggéey laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin 444 nga defee eh, yomul xamis mu bisub juróomeel bi mu di alxamis nga def naafile yi def istixfaar salaat ala nabi si ne téeméer daal di jëlaat ci sa kuréel liggéey laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin cinq cent cinquante cinq ginnaaw boo defee istixfaar salaat ala bi bu ci ne téeméer ka defee yowmul jumxati muy àjjuma di bisub juróom-benneel bi nga def naafile yi def astaxfirullah téeméer salaat ala nabi téeméer liggéey ci sa kurus laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin 666 su ko defee yow mu sabti muy bis bi nga xamante ni ci la riyaada bi mat muy bisub samedi bi nga def naafile yi moo defee naafile ba noppi eh, def astaxfirullaha téeméer salaatu ala nabi téeméer liggéey ci sa kurus eh, laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin 777 ko defee mbokk yi noonu la ñuy liggéeyee riyaada bi ba mat juróom-ñaari fan boo ko defee incha allah xat-xat boo mën di nekk feebar bu la mën a jàpp tawat yu mën di doon incha allah ak xat-xat yu mën di nekk yàlla mën na ko saafara suñu borom dana dindi ci xat-xat yi bu doon sa wërsëg dafa tëju incha yàlla dana la ubbi bu daan na ngaa nekk ci xat-xat tamit yàlla suñu borom dana la saafara ci xat-xat yooyu insha allahu rabbi lii nag muy njariñ lu am am solo ci ay alquran bi nga xamante ni moom la yonte yàlla yoonus ñaane woon borom Mam bam nekk ci biir jën wa eh, leer turu yàlla gi eh, dem ba jën wi du ko mu daal koy génne ca tafes ga daal koy gëq foofu noonu yonte yàlla yoonus daal di génn kon képp ku ne ci xat-xat di ko jàng rek yonte saa sala wax na ni ñaan gii muy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin bépp jaam bu nekk ci xat-xat wala ne ci ay jafe-jafe moo xam tawat la ak lu mu mën di doon wala feebar su ci ñaanee suñ boroom yàlla dana ko wallu kon mbokk yi ñaan gaa ngoog muy ñaan gu am am solo beneen bi ci des tamit képp koo xamante ni suñ borom eh, teg na la nattu nga mën koo liggéey ci benn jotaay moom ñaan gi laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin nga mën koo liggéey neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf juróom-ñeent junni juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent waaye boo ko mënee liggéey ci benn jotaay pendant trois jours ba tey baax na boo ko mënul def ko benn fan incha allah nu ba toll ci kàttanu suñ borom suñ borom dana la jëlee ci xat-xat yooyu kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin aousubillah min asheytan irajim